RFM li master office VDM bi jàkkaarloo ak foire bi ngeen taamu ngi seen bépp bureau ak jumtukaayu bureau ak informatique moo leen di may seen revue de presse master office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 lépp ña ngay xaar Abdoulaye Wade mu fay ko te nag yëf yi kanam la jëm ndax Abdoulaye Wade ba mu wàccee ci bopp réew mi ba léegi munta fexe ba dund ne ab citoyen simple kër ga mu nekk rek ñaar fukki employé ak ñett ñoo nga fa ñaari assistante juróomi agent de sécurité ñaari chauffeur benn chef protocole ñetti toggukat ak ay fóotkat te loolee lépp yéen a kaay bi noonu Abdoulaye Wade mooy ki koy fay feneen di ca laas leneen lu fa xew di Macky Sall ak li mu nekkee yéen a kaay bi ne ñu ci xëta mu njëkk ngir bëgg a wang wangal ak di dajale alal réew mi sakkanal ba nguur gi am lu mu doxee tax na Macky Sall ministère ministère yi nekk ci réew mi ku ndax moom Marème Faye Sall démb ma nga woon ca marché jën ba ca Pikine demoon seeti liggéeykat ya fa def ma nga yëf ya coow lu rëy la fa jur ndax élu ya nekk ca diwaanu Pikine dañ ca amer Marème Faye Sall jabaru njiitu réew mi di Macky Sall bàyyi na ca marché jën ba ca Pikine juróomi million millions ci suñu xaalis waaye na ko leer na juróomi millions yu problème la fa bàyyi Modou Diagne Fada nañu ci Walfadjri gisagu leen dara ndax ñun ba ñu fiy nekk mboolem lu ñu doon toppee di ñu ko xase gis naa ko ci gouvernement bu Macky Sall leneen la mu gis moom Modou Diagne Fada ba wax ko ci yéenekaay bi moo di Macky dogal yi mu fi jël bërki démboo njaay di direction yi mu fi fekkoon mu daal di koy tas li nit ñi xamul moo di Macky Sall direction bu mu fi dindee moo ko fi defoon jamono jamuy nekk premier ministre bu Sénégal mbir amatina yu bari journal bi nañu ma nga la yu tukkee ci redevance de sécurité benn société doxandéem bu nekk ci biti réew moo ko dajale ba mu yemb mu ne ko tungaañ yóbbu dem làq ko ci ñaari compte bancaire yu nekk ca bitim réew réew mi ci diiru fukki ak ñaar yi ko Abdoulaye Wade jiite ñaar fukki doomi aadama ak ñaar dee nañu ci ci Mali foro di lu tukkee ci rapport bi Amnesty International def jëmee ci àq ak yelleefu doomu aadama ñaar fukki doomi aadama ak ñaar yooyee dee takk deer yooyee toppee leen fa ba ñu xam ñi dee ana moo leen rey ki dee te ñuy wër li ko rey ba léegi moo di Ndiaga Diouf bokkoon ci nervi yi songoon Barthélemy Dias ka ñu ci joxar mi baaraamum tuma di Barthélemy Dias gannaaw juróomi weer yu ko yoon tëye mujj ko bàyyi direct info nañu bàyyi boobee ñu ko bàyyi mu amee liberté provisoire coow am na ca observateur nañu njabootu Ndiaga Diouf gi ci boppam ñoo ne duñu nangu mukk Barthélemy Dias di génn ci kaso bi ndax moo rey seen doom comme yoon génne na ko ko defante ak moom Jean Paul Dias di bàyyi Barthélemy Dias nañu ci journal bi kii di Lamine Thiam ni tolloo nit ñi amul lu mu wax bu ko tolloon noonu lan moo ko teewoon a yar ab jarbaatam ba mu bañ a bokk ci ñuy songi ay nit ba fay daanu ak di dee li dee dëgg mi ngi ci sunu làmb Ama Baldé daan na guy gi ubbil yéenekaay bi face à ba ñu doon def démb ba ndaje ma jeexee guy gi doon kaf jug song Ama Baldé Ama Baldé ko fa def jëf ju ñaaw ndax guy gi daf ko song mu reculer mbas ko caxabal ko guy gi ne mbàpp ci suuf te dara xewagul li war a xew dimanche lay xew Leewtoo yéenekaay dikk ceeg ñun ne ñu diggante guy gi ak Ama Baldé ci stade Demba dana fa am dina tàng dina miti ngoonu keroog ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai ci diggante Ama Baldé sëll bu ndaw ak guy gi di toog ba ñu lu koy nittali sax wóorul li wér te wóor moo di xale yu jigéeni Grand Yoff ya newoon ci seenub néeg summeeku ba ne dung di def yëfi saay-saay ci seen biir jamono ji ñoo ngi ci guddi gu bët setegul ba ñu daje ci seenub néeg ñoom ñépp ku ca nekk futteeku ba ne dung yor seenub kalamayeer di defante yëfi saay-saay nekk ca néeg ba di sim seen mariŋaañ mu di xale yu jigéen yooyee kenn ka Lalla la tudd ka ca des Anna kenn ka Ndey Fall ka ca des Fatima ñoom ñëpp yéenekaay bi nañu dañoo yaakaaroon ne la ñu doon def ca néeg ba lay yem waaye yëf yi teere dina ca gendarmerie ndax brigade des mœurs jamono ji observateur nañu moo amee enquête bi populaire dañu enquête ba police bu Grand Yoff moo ko yore woon waaye dañoo dem ba gis na yëf yi ma ngay bëgg a jéggi dayo te gone jigéen yooyee faaw ñu wax ci ñoom tax na brigade des mœurs bu gendarmerie nangu yëf yi dugg dëkk bi fas yéene wëri gone yu jigéen ya Master Office VDN moo leen doon may